Gueye yegsi na ci xabaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum El Hadj waaleykum salaam sëñ Fall ñu ngi lay ziar namoon nañu la. ñoo la raw <laughs> euh, di bu baax itam. soppi soppi yi laajte rek dañoo foogoon dañ laa jaay waa Barça ak <laughs> bi jërëjëf El dalal jàmm Babacar mbokk yi ñu ngi leen di ziar di rafetlu seen ànd ak ñun RFM saa su ne di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak lu jëm ci wàllu ñàkk yeeg jàngoro coronavirus ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ministre Abdoulaye Diouf Sarr euh, dina daal di euh, nangu tey jile lu bari ci dose yi ñàkk tukkee ci kaw initiative initiative COVAX euh, wàllu wér-gu-yaram ba tey ak jàngoro yi bilharziose ki lorangeem ci fukk ak ñett ci diiwaani Sénégal daanaka kon benn rek euh, fa la euh, lawewul looloo waral njaaxlek soxna suñu dénk programme national xeex beek li ñu duppee maladie tropicale négligée di jàngoro yi feeñ ci suñu gox yi lay ca joxuñ ko solo gi war wàllu xibaar bokk na ci waxaso gi tolluwaay la fa ak mairie ba nga xamante ni jamono yi ak sooxee ca ne ci wàllu liggéey bi danoo taxawoon di ab diir du taxu du dara lu ñu fa directeur de cabinet mairie ba xamle ni wàllu defaruwaat di réorganisation ñeel service yaa waral taxawa gi euh, ndaw yi Sénégal ak réseaux sociaux yi di internet gi Touba Mbacke xalifa bu tedd bi mun taxa Bassirou Mbacke bu sañoon ndaw yi boole ci teg teggin responsabilité na ko noonu mu ngi defee càkkuteef bu ni mel moom kilifa gu tedd gi démb ci kaw cérémonie officielle euh, tëj teg màggal ak ren gi ci technique bi Abdoulaye Diop. la santé. ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr dina daal di nangu réceptionné tey ay doses yi vaccin euh, jëm ci wàllu xeex ak jàngoro coronavirus ci kaw euh, initiative COVAX muy kon lu nuy nangoo ci yoxey waa France xew bi ci hôpital bu Fann lay doon ci teewaayu seen ambassadeur ñoom réewum France fii ci Ndakaaru ñu des ak wér-gu-yaram gi ak njaaxlek soxna suñu dénk wàllu programme bi jëm ci xeex ak jàngoro yu ñu duppee maladie tropicale négligée docteur Ndeye Mbacke euh, bu sañoon ñu gën caa taxaw rawatina ni lii di bilharziose yu yéeme la ci fukk ak ñeenti diwaan fukk ak ñett yëpp ma nga fa teew Ousseynou Diop. ci fukk ñeenti région yi nekk ci Sénégal fukk ñett yëpp feebar bi di bilharziose ma nga fa moo tax nag programme bi koy xeex daal di jóg taxaw ngir nag fii ñu mën ko faagaagal docteur Ndeye Mbacke moo ko jiitee. feebar bi fi mu toll tey war nañ taxaw seetlu. xool nan lañ mën a def pour que xeex bi gën a ñoŋ. ci seen i kàddu mbir yi fa mu gën a takkanaase bokk na ci région yi nekk ci bët gànnaaru réew mi rawatina Louga Matam ak Ndar Géej foofu fa la xeex bi war a gën a tar ci kàddu docteur Ndeye Mbacke. Ah, Ndar ak deneen région yi nga xam ne euh, ñoo ko seq muy Matam ak Louga ñoom ñëpp dañu nekk ci situation bi maanaam gis nañ ne feebar bi daf fi jégg dayo waxee sax mooy euh, zone yi gën a tàng. ñu xool yan stratégie lañ fay développé. li tax sax ci région yooyu mu gën fa tar bokk na ci wàllu barrage yi nga xamante ni ubbi nañ ko fa moo di jafe-jafe askan wi loolu moo waral ki jiite programme bi di dànkaafu soxna yi. jigéen ñi surtout euh, nañ ñuy jàppale ba nga xam ne li ñuy dem ci dem ci dex yi ñu maytu ko bu baax di ànd ak xale yi mais aussi lépp li nga xam ne gis nañ ne da koy waral ñu ñu maytu ko bu baax a baax. fexe fii ak 2030 xeex bi gën a takkarnaase ñu mën daan Biradjose loolu mooy ëmm kilifa yi. maintenant dina jafe ci diwaan yi nekk ci bët ganaar réew mi ndaxte ci gox yooyu ndox ma def fa bare. Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou jërëjëf wàllu wér gu yaram ba tey ak askan wa dëkkee ca Ngoj commune bu Dia ñoom nag euh, jariñoo nañ lu jëm ci wàllug ceet ñeel seeni yaram di consultation gratuite ci wàllug wér gu yaram euh, ñeel commune ba mouvement agir moo leen baaxee lu ni mel lañu fa gis nag euh, ne jàngoro bari na bokk na ca wàllu hypertension ca askan ba foofee naka noonu nit jàngoro yi nga xamante ni mooy ay saan yeneen. diwaanu Kaolack la ñuy dem ak Pape Mbaye hypertension ak maladie yi nga xamante ni ay parasitose la doon na loo xamante ni lu nu nemmeeku lan ci population bi nga xamante ni ñoo nekk fa Ngocc mu di benn dëkk bu nekk ci commune de Dia bu sukkandikoo ci Saliou Faye président association Sine Santé ci juróom-ñeenti téeméeri patients yi nga xamante ni daal dinañ leen di seet ñu ci bëri feebar yooyu moo leen sonal. ndox mi bëri na donc euh, cours d'eau yi ak les marigots là xale yi dañuy dem di sangu et tout ce qui veut dire que forcément day am développement li ñuy woowee parasitose yi saan yi moom bëri na lool lool lool lool ñuy woowee tension parce que tension la xam moo jiitu largement franchement moom moo jiitu largement da ngay xam ne te pourtant tension nekkul loo xam ne lu jafe la il suffit juste nga expliquer nit yi moom aussi mu appliquer li nga ko wax parce que loolu aussi lu am solo ñoom nag nga xamante ni jafe-jafe médicament maire dina jox dinañu jox dotation joxee dotation ba pare mais nag électricité moo sonal ndax parce que ñun ñoo koy jël en charge suñu bopp te xam nga ne bu fekkee ne yow mënoo koo génne ci ticket da ngay obligé nga nga recourir ci médicament loolu daal surtout mooy suñu problème médicament yu doy mënuñu ko am ndax lu ñu am ci médicament daal di koy defaat ci ci yi. li waral ñu def consultation gratuite yi nag Ibrahima Diouf nekk président mouvement un objectif. ku nekk xam ne ne dëkk yi àll yi ñu ci bëri jamono ji ay jafe-jafe la ñuy am ngir ñu mën a am koom ñu ci bëri dañuy feebar mais du ñu am xaalis boo xamante ni dina mën a tax ñu dem faju ji moo tax ñu ne ñun nan ñëw jàppale population bi ngir rek ñu mën a faju loolu ba moo waral ñu amal consultation yi. population sur place. consultation yooyu nag daal di am ci ñaari fan lu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay agent de santé ñu daal di leen di mobiliser ngir rek ñu mën a faj askan woowu nga xamante ni ñoo nekk fële ca Ngooc RFM Kaolack Pape Mbaye Diaw jërëjëf Pape Mbaye euh, ginnaaw wér yaramu askan wi bu mala yi donte am na sax lu leen lënkale daañ ci ñëw ci kanam waaye jàppale ni lu toll ci fukk ak juróom-ñetti service vétérinaire nañ ko ci sous région gi ngir rek xeex ak jàngoro ñu duppee jàngoro yi euh, frontalière wàllu lu ci mel ni peste ak jur gi nga xamante ni mu ngi leen di gàllankoor ci weneen wàll ay boroomi xam-xam di gëstukat ñoom it ña nga ca ci gëstu yooyee ngir fexe ba euh, jox jëmu yeneen mbay meeg càmm gi ba ñuy mun a sàmmal askan wi it wér yaramam bu weesoo bu jur gi Abdourahmane jàll ngir mën a suqali wàllum càmm gi wërgu-yaram mala yi lu am solo la ci ci loolu sax juróom benn réew yu nekk sunu wet ñu daal di xayma projet bii ñu duppee projet d'appui au pastoralisme au Sahel Mamadou Ousseynou Sakho mooy secrétaire général ministère élevage exemple lu mel na paiement bi duñu woon lu may na kii bi duñu woon fileeg 2030 duñu bëgg mu jeex ci àddina bi yëpp sax donc Sénégal ak pays yëpp ñu nekkandoo ci donc ñi ngi vacciné mais jafe-jafe bu nu gënoon bi am parce que banque bi indi na li nga xam ne mooy oto jox na ko kii tabax na euh, indi na ndimbal yu bëree bëree bëri donc defar na ay forage ci yu bëree bëri mais li nu gënoon jànkaloo mooy amuñoon ay ñàkk yu doy te loolu mooy man ñu ko doon def moo màggat ci beneen lël foofu tamit lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram territorial la ñuy waxtaanee ndaje boobu nag mooy fexe ba nga xam ni dañuy waxtaanee wér-gu-yaram gàncax bi wér-gu-yaram mala yi ak nit ñi Astou Diaw Camara gëstukat la ci ISRA ñun li nga xamante ni ñooy gëstu ñooy ñooy jiitu ci wàllu xool lan mooy jafe-jafe yi lan mooy tax mbay mi gën a am rendement mais rendement boobu ñu teg ko ci yoon bu bu sell boo xamante ni lépp lu ñu daan jëfandikoo lu yàq euh, qualité ndox mi ci ci pollution lépp lu ñuy jëfandikoo te mu yàq suuf si naka la ñuy def ba di ko gën a ba joyanti ko ba mu gën a baax ba mu gën a jege lu ñuy wax euh, produit naturel donc loolu moo yëkkati euh, suñu projet bi. ñaari projet yi yëpp nag muy bu santé animal wala boog santé territoriale ay réew yu ñu wër bokk nañ ci ngir mën a xool nan la ñuy def ba li ni mel mën a antu RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane RFM juróom-ñetti man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu bët gànnaaru Sénégal la ni wutali ci Ourossogui yi mairie ba daanaka jamono yi ak ngiroo ci am demul dikkul du taxe bu nu fa collecté du leen agent yu liggéey naka noonu toogloon nañ leen seeni kër li ko waral ci euh, gis-gisab directeur de cabinet bu maire ba Moussa Bokar Thiam mooy euh, ak defaruwaat ñeel service di réorganisation Ali Bandel coow laa ngi wéy dina cour ci municipalité bu Ourossogui liggéey bi ci commune bu gën a mag fare ci diwaanu Matam tax na du mooyu la war a lépp nag ñàkk teewaayu ñi jëm du war a collecté juuti gi ñi liggéeyuñu te ay conseillers municipaux ñi jiite conseil communal de la jeunesse ñoo daje ak way xabaar yi dénk seen kàddu Mamadou Ngawa Dembélé xam ne dañuy liggéey pour jéem a setal dëkk bi mënuñu liggéey ñoo xam ne dañuy jëli xaalis bi pour indi si dëkk bi lépp dafa taxaw looloo waral nag ñuy artu suñu xale yi dañoo jëm si ubbite école dafa laaj extrait de yoo xam ne ci mairie bi nga koy jëlee ñëpp xam nañu wurusoo gi position bu mu am doole ju mu am xam nañu perte loolu musul am kenn musul gis lu mel nii. nga xamante ni nag mooy directeur de cabinet maire bu Ourossogui mu ngay wéy di persister ci version bi mu ñu bi ñu njëkk jox Souleymane Thiam mi nekk collaborateur bu gën a jege maire bu Ourossogui moom mu ngay démentir bépp blocage bi ñu ne am na ci wàllu fonctionnement bi ci biir mairie bi. su gisee tey euh, nii di ñii di dagg juuti liggéey ñu si commune de Ourossogui c'est parce que tout simplement si organigramme bu bees chef du de recette moom mooy remplacé tey surveillant comptable réaménagement boobu dafa lu bëri si fonctionnement si gestion financière commune commune tax maire mu suspendre agent collecteur yi se mettre en conformité ak décret bu bees bi incha allah d'ici mardi collecteurs yëpp nañ ko réaménager respecter les dispositions. nu ma mënta demee moom coow laa ngi ne cour ci biir dëkk bi di Ourossogui fi nga xam ne sax ay ndaw yi nga xam ne dañoo bëggoon amal ab sitting ci biir mairie ba mbetteel bu rëy la ñu am nde fekk nañ fa ay takk der yu bare bare yi nga xamante ni dañ leen yabaloon ci bërëb bile mu nekkoon seen atangowaal yi bandel ñaa fii ci daanu Matam pour jërëjëf Ali Bandel màggal ren gi téeméeréel beeg ñaar fukk ñaar woote Cheikhul Khadim tëjte gi démb ci cérémonie officielle bi euh, bokk na ci ay kàddu càkkuteef tukkee ci xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké lu jëm ci wàllu ndox meek que wàllu assainissement ñeel diwaanu Maam Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul waaye it ndaw yi Sénégal ak lii di réseaux sociaux yi internet gi euh, doxalin yu ca euh, wane ñàkku gi nag yeneen lu ko yéem la moom kilifa gi bu sañoon daal gune yi boole ci responsabilité Pape Balla Gueye bari ci ay ponk na loo xam ne lu soxal kilifa yi nekk ci diwaanu Touba. ak bokk gu yàqu yàlla da koo bañ te ñaata mbokk moo yàqu te jumtukaayu xarala yu bees moo ko waral da ci biiru xeet di ko ca jaarale wala da ci biir tariqa man nangam laa man nangam laa di ko fa jaarale ak bodd compte ci wàllu politique di ko fa jaarale. Sidi Makhtar Ka mi wax ci kàddu Serigne Bass Abdou Khadre di joxe bataaxal bi ñu jagleel taalibe murid yi le donc ay teggin nañu laxasaayu liggéey ba am lu lew te bu ñu amee lu lew nag ñu koy defaat ci yoonu yàlla. na ko mag ña daan defee ku mel ni maam Thierno Birahim wala maam Cheikh Ibrahima Fall. nekkoon gan gi jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew mi de Antoine Félix Diome ci teewaayu ñëpp muy xamle ne njiitu réew mi Macky Sall doog na ngir daal di jàppale Touba ngir fexe mu doon dëkk boo xam ne bu taaru te bakkane lay doon. université Cheikh Ahmadoul Khadim bii ngir liggéeyal sëriñ bi liggéey bu kawe. boo xam ni askan wépp ko tax a jóg yitteel na président lool te bàyyi na ko xel fas na ko yéene ànd ak Serigne Mountakha ak bépp sumb boo xamante ni am na ko. Serigne Bass Abdou Khadre moom ci wàllam muy dellu fësal naal yi nga xamante ne moom la xalif général de Mourides am te dëgmal ko lool. sumb bi gën a rëy ci moom mooy université bi. waaye bu université bi jeexee jàmm li ko gën a ñor ci ay itam mooy ñaare ndox yi ndox mi ñuy jëfandikoo ci biir dëkk bi ndax ñëpp xam nañ ne jafe na ci dëkk bi bu ñaareel bi mooy ndox mi wal di dugg ci biir kër yi. mbirum ndox meeg assainissement bi doon loo xam ne ci gis-gisu député bi nekk itam njiital groupe parlementaire liberté et démocratie Cheikh Mbacké Bara Dolly kilifay réew war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax. fexe ba def fi assainissement boo xam ne bu wér lay doon su ma déggee ñuy wax ay 23 milliards mi ngi mel ni géej nga jël benn tibbu suuf sànni ko ci biir géej ñu ko bëggee assainir il faut ñu dégager ay 500 milliards 600 milliards pour ñu xool nan la ñuy def ba assainir Touba yëpp. téeméer ak bu Touba bi ñu daal di koy amalaat muy ñaareel mi lay am njort tamit ne daañu fàtte lépp lu jëm ci jafe-jafe ndox ak assainissement fileeg màggalu déwén Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. jërëjëf Papa Balla ñu des ci ponk bi nga xamante ni yitteel na lool ku tedd kii jëm ci wàllu xoolaat internet geeku doxalin ndax dog mbokk geek na ko lislaam bañe ak wàllu uh, wàllug li nga xamante ni mooy uh, woro yi ci biir penc mi uh, nees koo mën a moytoo defal nañ leen ci gëstu Ibrahima Diame mu jox kàddu gi yenn ci spécialiste ñoom jàpp nañ ni ak yoonal di régulation faaw mu am ba ca topp mooy wàllu sensibilisation ak tàggat jëm ci gune yi ba xam ne internet gi njëriñ la ci ëpp yoon wanu bëgg a jaar. di safaan E xarala yu bees yi nag am na njëriñ lool bu fekkee ne jafandikoo nañ leen ni mu waree waaye nag bëri na lool ñi nga xamante ne niñ leen di utiliser di ne nanguwu ko te moral nangu ko nguur gi nag ñu ne moo ngi ci tànku def ci ay jéego ngir régulation ñu mën a encadrer niñ koy jëfandikoo waaye Basile Niane di formateur ci wàllu communication digitale di xam xamle ne faw ñu impliqué ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci yëngatu ngir ñu mën ci am encadrement bu mucc ayib. lépp lu jëm wàllum jëfandikoo li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi dafa jot ngir ñu teg si suñuy loxo ngir waxtaan ci parce que dafa laaj waxtaan waxtaan mooy tey nguur gi am na benn loi boo xam ne mu ngi koy euh, jéem a def ngir contrôler lépp lu jëm si wàllum utilisation réseaux sociaux yi mais man dama yaakaar ni balaa ñuy def loolu il faut que ñu waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci terrain bi waaye waxtaan ak société privée société euh, société civile ak euh, le public également. teg ay loi baax na dëgg la waaye ci gis-gisu Astou Diouf di cyber juriste sensibiliser ñaax ndaw yi tàggat leen loolu itam lu am solo la. nañu sensibiliser xale yi yéen ndaw ñi ci ni ñuy utiliser réseaux sociaux yi mais aussi nañu former ndaw ci université yi nañ jàngal ndaw yi ne ak internet bi mën nañ ci liggéey am sa xaalis gàññ si suñu vie maintenant pour ñu wàññi yi nga xam ne mooy dérive yi am si internet bi maanaam ci porte atteinte ay vie privée di def ay infraction cybercriminel mën nañ jàngal ndaw ñi ci message bi mu joxe nag jaarale ko ci porte parole am kii di Serigne Mountakha Mbacké di xalif général di Mouride daal dinay ñaawlu bu baax a baax ni nga xamante ni noonu la ñenn ñi di jëfandikoo li di réseaux sociaux yi RFM Sport. sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar bu baax Malal. maa ngi delloo ziar ak Assane. bisimilah. ñu dooree ak Coupe d'Afrique euh, bi ñu jagleeloon ñi tëx te seeni euh, kàddu taxaw muy euh, ñooñu di football football boobu nga xam ni nag dañu ko duppee football malentendant ñoom nag dañoo def jaloore joo xam ni jaloore ju mag ndax dañoo indil Sénégal Coupe d'Afrique des nation de football ca fañ ko doon amalee ca Kenya. ñoom nag ba nu gañee ba noppi ñibbisi ci euh, réew mi démb ci aéroport Blaise Diagne bu Diass Sénégal dañu leen fa leen teeru tatagal leen bokkoon na ci ñu ñu fa yebaloon euh, Abdoulaye Sow nekk ministre ci gouvernement bi mu dem foofu yëkkati kàddu yi nii euh, lii xale yi def dal na xel te itam sedd na xolu Sénégal yëpp. au nom du ministre des sports bëgg naa ci tuuru njiitu réew ministre des sports nga xamante ni maa yor intérim bi waaye tamit gouvernement bi yëpp wan leen bëgte bi nga xamante ni moom la askanu Sénégal am wane ngeen ni soo àndeek fula ak fayda dara mun la te donte sax léeg-léeg conditions yi day jafe wan ngeen Sénégalais yi tamit ni donte sax léeg ñu am ay jafe-jafe waaye suñu amee yéene rek dara munu mënuñu tee ngir ñu am ndam wane ngeen tamit ni laago mënul feeñ su fekkee ne nit ki am na yéene am fula mooy leçon bi ngeen won tey sportif sénégalais yëpp jaarale ko ci ci bi ngeen def ca Kenya. périple au Kenya. Euh, mu ngi noonu kon euh, ci wàllu football tam Sédhiou bëgg nañu daal euh, fexe ni ba seen équipe ba doon équipe bu ñuy dégg ci réew réew mi di Sénégal léegi nag bu ñu ko sosee ba léegi amoon na ci ay jeex jaaxa tax nañu daal di kon tabb ay nit ñu yees dénk leen yëf ya Max Euclide Kamfani moom itam si na ca liggéey ngir daal di koy waxtaanee. lañuy itam ci wàllu basket laataa ñuy euh, waxtaanee lu jëm si euh, Ligue des champions bi moom mooy euh, gédd àdduna international sénégalais bi di Cheikh Mbacké Diop moom nak bokk na si ñi gagné woon Coupe d'Afrique basket bi ci 97 fii ak ñoom Aly Ngouille Niang ba mu dëddoon nag Aly Ngouille Niang di kenn ci ñoom doon jonganteel te xarite woon ak moom loolu yëkkati na ci kàddu def seede ci kii di Cheikh Mbacké Diop. waaw Sénégal perte na zone boo xam ne zone bu bëggoon Sénégal la bëggoon basket bi bëgg a nationale dem na jaloore yi nekk asfa gañe na lépp ak asfa avant mooy dem Maroc ay Qatar foofu tamit gañe la fa lu ne door a ñibbi si waat Sénégal loolu day wane ne ñun perte nañu ku nit ku mag si basket boo Sénégalais. nit ku baax la man sama grand frère la dafa nekk grand frère boo xam ne daf ma bëgg bi ma ñëwee équipe nationale daf ma jël rek uuf ma def ma raqam noonu la ñu continuer nag ba xew këram daf ma koy yëgal man tam lu ma xew la dama koy yëgal yàggul trop sax bi muy mayee doomam maa ngi fa woon ndax ma doon defal lu ne tamit waaw nit ku baax la bëgg njabootam bëgg ay xaritam ñun dañu am groupe 97 ñu génnoon 97 dañu am benn groupe ñun kese la mais Cheikh Mbacke bi si duggee moom mooy xumbal groupe bi neexal groupe bi nit koo xam ne dafa diñ serein ba pare tamit alalam boolalu ko kenn waa ju baax la waa ju baax la daal alalam boolewu ko ak kenn tam ñu jaar di waxtaanee Alaaji Assane tey ji dinañ door ñaareel bi journée phase de poule jëm si wàllu Ligue des champions mu bëri ay jongante yu ñu fas yéene kon amal ci euh, ngoon si jàpp nañ ci nag euh, équipe yi war a dox diggante euh, Paris Saint-Germain moom war naa jouer ak waa Manchester City Leipzig ak waa Cluj ak waa Bruges dinañu jouer AC Milan ak Atlético Madrid boobu tam jongante la bu am solo Liverpool ak Sadio Mané ñoom ña nga jëm ca Portugal war a jouer ak FC équipe bu Porto. Ajax ak Besiktas itam danañu amal seen i jongante ñi itam di waa Borussia Dortmund ak waa Sporting Portugal daanu amal euh, jongante Inter Milan moom dafa laal a jég waa Shakhtar Donetsk waxtu boo xam ni Real de Madrid équipe bu euh, Tiraspol lay kon euh, dajanteel loolu nag 19h lay doon dinañ ci seppi benn dégtal ko auditeurs yi. incha allah félicité équipe euh, bi nga xamante ne mooy malentendant yu Sénégal. ci seen coupe d' Afrique yi. Mm. Ah, di ñaan rek kilifa yi defal leen lu lu ne weng. ndax ñoom def nañ lu kenn deful ñoom def nañ lu kenn deful ci football bi. Ah, mooy dem coupe d' Afrique indi ndam li. indi ndam li waaw. acc at moo xam ne dañoo laaj ci boor yëpp. Mm. ñoom ñu indi ndam li kon loolu jot na. macha dalal leen. ils ont sauvé l'honneur. defal leen fulla ak fayda. yëf yi kon du ciy wax ci jëf la. waa ci jëf la. jërëjëf Malal. jaajëf. RFM rajo askan ñu ànd ak xaaj ndate ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm Dakaaru di dalal démb ba léegi am ndaje moo xam ne ni àdduna wërngal këpp ñoom ñoo ko sëq di defub saytu ci li ñu duppee mission Dakar Djibouti musée de civilisations noires bu Sénégal ak musée Quai Branly bu France ñoom la ñu bëgg moom mooy tëgg beneenub l'enquête jëmle ci wàlluk objet yi nga xam ni moom la ñu collecté woon ci boobu mission nga xam ni dooroon nañu ko lu toll ci juróom-ñeent fukki at. Oumou Kalsom Ly fekke na cérémonie d'ouverture ba. ay kàngam yu musée civilisation noire ak yu musée Quai Branly nekkee ca France ñoom ñoo na a dajaloo ci ab projet boo xamante ni projet de recherche lay doon ak ay exposition ngir mën a dajale résultats yi nga xamante ni moo ko ci mission Dakar Djibouti bi nga xamante ni amoon na ci atum 1931 jàpp 1933 li ñu bëgg nag mooy ci bés yi nga xamante ni dañ koy war a weccoo ay xalaat ci question boobule def ay jàngat ci mbir mi Emmanuel Kazererou nekk président Mickey Branly, Jacques Chirac ci njëriñu bile projet. Essayer de parcourir ensemble cette histoire, d'en avoir une approche euh, critique et surtout en transparence de euh, partager l'ensemble des résultats de cette mission et des résultats et également des recherches qui sont effectuées à partir de ces, documents. Mission Dakar Djibouti bi nag waneen lu bari lu ci mel ni ay objets et enregistrement sonore yoo xamante ni bokk na ci suñu histoire Emmanuel Kazerero. C'est environ 5000 euh, objets mais c'est surtout des documents parfois euh, ont évalué ou alors n'existent plus. Ce sont aussi des spécimens euh, zoologiques euh, qui permettent d'avoir une sorte de profil de ce que pouvait être cette trajectoire de cette Afrique d'il y ans. objet yi nga xamante ni jot nañ koo dajale ci mission Dakar Djibouti bi nag am na njëriñ bu baax a baax buñ sukkandikoo ci directeur musée civilisation noire bu Dakar Amady Bokoum. yenn woy yi yenn fecc yi yenn garab yi yenn mala yi seulement fu ñu ko jëlee woon amatu fa léegi am information boobu day lay nga def lu ñuy wax ñaari yoo xam ni dafa am distance temporelle seen seen biir nga xam par exemple mille neuf cent trente li nga amoon léegi mais mille vingt et un lan nga amoon am na solo dans tous les ci diirum ñetti fan kàngam yi dinañ wecce ay xalaat waxtaane lu jëm ci wàllu mission bi buñ ca noppee nag daañu dëxëñ ay digle daal di ko jébbal ñi nga xamante ni ñoo di njiit yi ngir ñu mën cee jëriñu atelier boobu jëm ci mission Dakar Djibouti dinañ ko wéyal ci ñetti fan ay kàngam yu mag di ay conservateur ak i yu fekk baax ci réewum Sénégal ak ca France ñoo koy teewee Tunisie daal dinay dalal ñaar fukki fan ak ñett ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar gi ñu génn li ñu duppee les états généraux du livre maanaam am ndaje moo xam ni dañ cay waxtaane jafe-jafe yi nga xam ni moom la téere am rawatina téere yi ñuy bind ci kàllaam nasaraan ndaje yooyu doon amee ci cité de la culture nekk foofu ca Tunis di péyum réewum Tunisie lu ëpp ñeenti téeméeri participants bokk nañ ca ca ñoom ñu ràññee ca ay bindkat di ay auteur waaye tamit ñuy yëngu ci wàlluk livre ak yenn ci ay responsable politique ak institutionnel ndaje moomu nag la ko taxoon a jóg mooy ku yokkute téere yi ñuy bind ci kàllaam nasaraan waaye tamit fexe ba lawal ko ba ci àdduna wërngal këpp jageen jëf ci déglu bi fi lañu yem di daje ëllëg NCA Assurance Savon de Marseille Alphé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop déodorant Malaysia UMO ak seen marque téléphone yu bees yi di Mion ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Abdou Diouf dal leen jàmm daanaka yëlekaay yëpp bàyyeeku nañu Touba tey jii ci suba ñoom ñëpp ñoom ñooy wax ci màggal bu Touba téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bi nga xam ne amal nañ ko sama naataango yëpp xëy xëyee kàdduy Serigne Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides observateur di ñu limal leçon yu mag yi nga xam ne Serigne bi daal dina koy def li jëm ci wàllu woote yi violence yi réseaux sociaux yi ci lépp la àddu moom Serigne bi réew mi quotidien di ñu xamal ne ab xutba dëgg la yëkkati moom Serigne Mountakha Mbacké lu jëm ci wàllu réseaux sociaux yi élection locale yi dara la ci bàyyiwul kàddu yi mu yëkkati yépp nag boo ko doon tënk moo di doy na sëkk suñu sukkandikoo ci source a li doy ba bëggatuñ koo gis moo di inondation yi nga xam ne dafay faral di jaaba jonge foofee ca dëkk boobee de Touba waaye itam ñàkkum ndox mi ci jamonoy màggal enquête tuddee ko ndigal yu sëriñ taxaa lépp lu jëm ci wàllu élection yi xalif bi àdduna ci moom nag li mu def moo di daal di wote ngir ab dal suñu sukkandikoo ci Sud Quotidien euh, sëriñ Muntaxa moom naqarlu na bu baax a baax lu jëm ci wàllu mbënn mi yëkkati kàddu ñaawlu lépp li xew ci biir penc mi moom moo ñu koy xamal tey wax ne lu jëm ci wàllu violence ci wàllu politique bëggatu koo gis waaye su weesoo kàddu yi am na ay lim yoo xam ne daañu ko fekk ci biir yéenekaay yi tey ji ci suba l'observateur di ñu xamal ni lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay doomi aadama bokk nañu ci ay l'accident juróom-ñett ñoom ñoo ci faatu police daal di fay def liggéey boo am solo ndax booy seet lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay doomi aadama teg nañ leen loxo jébbal leen itam procureur de la république moom procureur dina am liggéey boo xam ne sas nañ ko ko bakkan la ay yoo xam laale ci biir suuxu bato bii de la Joola ci yéenekaay bii di Le Quotidien maître Sidiki Kaba di jëwriñ bi ñu dénk wàllu armée fii ci Sénégal di wax ni daañu génnewaat bato boobee moo tax muy xamle moom taskatu xibaar bi ne moom jëwriñ bi seppiwaat na ay mëbët yu bàyyeekoo ci njabootuk ñi loru ci biir bato la Joola ci jamono ji nga xam ne dañ doon fàttaliku jéye boobee amoon ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2002 fukki at ak juróom ñeent ngi nii ci tey jëwriñ bi ñu dénk wàllu forces armées ni daañu génnewaat kon boobule bato waa boo xam ni dafay tax bés bi ñu koy màggal at mu nekk ñu naan ko journée de souvenir ay souvenir di ay fàttaliku ay mëbët ak itam ay xupp jëm ci wàllu bato bi ak jëye yi nga xam ne mën na amaat fii ci réew mi loone le Sud Quotidien xëyee jëm ci wàllu suuxuk bato bii di la Joola Libération moom leneen la xëyee tey jii mu ñeel fanweer ak benn ci ay sëy yoo xam ne dañ ko takk ci mbirum trafic passeport diplomatique waaye li ci gën a yéeme mooy suñu sukkandikoo ci suñu naataango bi di Cheikh Mbacke Guissé es wage ci soxna yi Mamadou Sall waaye ba ñu seetloo ba seet la ñu gis moo di ab góor la mbir moomee kon jeexagul ndax am na leneen lu ci bees moo di France ci boppam dugal na ci yoxoom les échos mi ñu ko yëgal di ñu xamal ni moom France ubbi na cab l'enquête te li ñu bëgg rawatina porte parole bu Quai d'Orsay moom bon waa Liberté moo di nguurug Sénégal yombalal leen lu jëm ci wàllu boobu boobule ba ñu xam kenn ku nekk fa nga laaleek la tax nga laale ca ñu naan ko responsabilité responsabilité bu mag la sa Gana Gueye am tey jii ci ngoon moo di fexe ba ndorteel li nga xam ne bu mucc ayib la mu am ko ak Paris Saint-Germain mu daal di koy wéyal tey jii ci wàllu Ligue des champions seen digganteek Manchester City lay doon revanche lay doon wala confirmation suñu sukkandikoo ci record muy samp laaj bi tey samp beneen xool ba xam ndax Sadio Mané tey jii ci ngoon dina nekk ñetteelu joueur bu Liverpool boo xam ne dina dugal dugal lu toll ci ñaar fukki bit ci wàllu Ligue des champions Aliou Cissé mi leen di tàggat yokkal nañ ko contrat am fileeg ñaari at record moom moo ñu ko xamal stade yëglekaay di wax ni moom entraîneur bu Sénégal ak i gayndeem ñu ngi leen di xaar ñetti fan ci weeru octobre ñu door seen regroupement ñeel jongante bi ñuy waajal seen digganteeg Namibie mu jëm ci wàllu qualification mondiale 2022 Eumeu Sène moom dafa xëy di àddu ci li ko booleeg ñaari ténor yi muy mu xamle ci Bombardier moo di pistolem moom ba léegi mënagul a nangu ñaari jël yu mu am ci kanamam moom Eumeu Sène